asalaamaaleykum mbokk yi asalaamaaleykum ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen di nuyu leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla dolli wér dolli dal dolli naan ak réew mi defe démb déglu na ñun ñëpp le président de la république di rafetlu nag discours bi ndax Diomaye a parlé en tant que clé de voûte des institutions le gardien de la constitution moment ki nga xamné moy la di ñep wax na nga xamné mom mo wara a ak dal am ci rew té lu am solo la nit ñi élection c'est un moment de fête bisu fête la kooku def naa ne la yàgg naa leen koy wax koy wax depuis lu la toujours jàmm la ñoo ñaan ak dal ndax élection bi su feet la ma sa doon kon nañu ko wuy si si loolu mu woote euh, di wax ne dafa wax en tant que président de la république di président ñëpp te it def naa ni ba coow li commencé au départ man daan naa ni ko wax ni leen nag da xam ni euh, Sénégal yi ñoo fal Diomaye même bu fekkee ne xeex bi xëy na ñi ëpp euh, waa Pastef ko xeex mais am na ñu leen voté ñoo xam ne xamu leen leen sax ndax nee naa leen euh, la masse silencieuse bi voté nit ñi xamu leen ñi nga xam ne ñooy far ñooy folli ñooñu du ñu dem si manifestation presque du ñu dem si dara gën la dégg dara ñoom seen carte la ñoo toog jàpp seen jàmbur ñooy départage toujours bu coow li bare ñoo jar a bàyyee xel lañ tey dañu war a fàttaliku bu ngeen xoolee xooleen exemple Afrique du Sud rek.

kon nga xam ne ñooñu dundoon nañ lu méttee méttee métti dañu daan boddi fu nekk mu mën a ñëw taxaw baale lépp kon loolu jar na bàyyi xel exemple la te yi mën nañu toog cité yeneen exemple si yeneen réew mais pour wax ne rek réew mi bu ñu ko bëggee defar fokk aussi xool yi ànd nekk benn te it li mu wax dafa leer aussi tey bu ngeen xoolee ñi fi jaar ñi ñu njëkk a fal fii si réew mi

nañuy bàyyi xel toujours si loolu Ousmane Sonko nag il a parlé en tant que le président du parti Pastef pastefien la doon waxal te it yooloon la mu calmer aussi mais Ousmane Sonko ak Diomaye réeroowuñ te mosuñu réer te duñu réeroo mu incha allah rabbi Diomaye mooy sonk tey la gën a dëgër tey la gën a dëgër ñoom xamante nañ te duñ umpante si dara kon li ngeen mën a dimbalee rek mooy ànd nekk benn benn say fexe lii ñuy dëgmal mu législative yi ñu remporte ko si remporte bu lay am naññi képp koo xamante ne aussi bëgg nga coppitam réew ñaara mën a am ànd liggéey jàppale leen ñu nekk wenn say liggéey wala ñafe ne woon toogaat fi rek tey dafa naa loolu nit ñi dundoon kenn ñaar ñaar dundaat ko kon nag ñu bëggee lii am nañu ànd xam ni képp koo xamante am ngay compétence daan gox fii ku mu xool ni war na la mën a fal mën na la fal du tee nag lii am nii démocratie la parce que aussi Pastef dafa am lu rare si yeneen parti yi mooy démocratie ndax bu njëkk da nga naan Ablaye Wade Moussa wax kenn du sa xëpp dogal na jeex na bañ nañ ko ba siège yi daan toog sax aadu weer yi daan Ablaye Wade siège Ablaye Wade table Ablaye Wade daan lépp moom woon lépp loolu nag dafa xëy na tey jii romb nañ foofu mooy démocratie moo am si Pastef moo tax nit ki war mën na jël sa décision nga wax sa xalaat. kooku dañ koy sant lu baax la aussi démocratie mooy dund rek day wane démocratie Communiste Party tey projet la boo xam ne kenn ku ne mën nga sa bopp ku ne nga siy jël def ko si mais bu ñu wax ne xëy na ñun ñoo suñuy dërëm que ñun lañ war a fal wala ñun ñoo doon xeex dem que ñun lañ war a fal tey ñi doon ñu si bëri tey ji fekk ñu ko te pourtant réew maa ngi continuer nañuy bàyyi xel si loolu bu baax a baax a baax li ñu leen a jàppale daal pexe ba parce que am na yoo xamante ni bu ñu ko bëggee continuer سياخ لاخ لا جام دي ناني فخه با دال كيب كو ني فال دال ناني فات سي س كومبيتانس اك سي سن جوك لينن لوم دم باكس فون اك موم واخنا كو واخ لي ما دام لير سو با جام دي بون موم لا فاتون با اور سا دم بس بي ني غيس ني كات امنا لو ني غيس وون تا فاج نا مي با دا لاي واتي نزرا با نياتا امنا ني فيتا واتي ньо خامتاني اي جافا جافا تام واتي لا كون لولو جومي امنا فلو جو خامتاني يوي دوكو دوكو دمال كون نانيو لين ديمبالي ni ñeen may jàppee te ñii di tëb a kaddalaka kii naan jomaay nangam ak Sonko déedéet nañu xam ne jomaay ak Sonko tey la seen diggante gën a tax te incha allah rabbi si kanam bi ngeen sax dara kon li daal laa doon indi wax nit ñi daal ñuy gën di dal te bu dara amatee surtout ñi nga xam ne cadre parce que xaw a jige kaw bala ñuy te ñuy jokkoo ki nga xam ne yow mun nga aw Ousmane Sonko jot ko boo jot som jomaay dina mu ngi jot Sonko mais fóotum biir si biir lañ koy lijjante donc mën ngeen bàyyi waxtaane ko ba nga xam ne vraiment solution dina ma am si amin bu rafet li daal lañ doon leen dénkaat rek di wax ni euh, incha allah rabbi euh, benn baat rek la muy focus 2017 euh, nañu fexe ba daal lii di ñëw ñu lijjante ko si liñ si bu rafet bu dee tey li Pastef yi war a xeexe tey fexe ba le projet si boppam koo jàkkal la mu ne ko projet bi kat lii ak lii tax jóg fexe ko convaincre ba mu bu ko nangu doon sax mu xam ne lii dafa jóg pour dafa réew bi dafa naan foofu la combat bi nekk tey jii fexe ba projet bi samp ëllëg kenn dootul taxaw ni kat ñii lii la ndeke lii la ngën jële réew bi loolu daal foofu la ñu la taxaw amee taxawaay bu mat sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk lii daal doon dénk ñëpp daal di wax yàlla na yàlla waat wér doolu naataange loolu di taw fex si réew mi di ñaanal Ousmane Sonko ak Diomaye it yàlla gën leen a jàppale te taxaw leen euh, jërëjëf